seen émission ndogali ak Bawol Média FM tous les jours à partir de 20h40 ki leen koy présenteel di Mor si Cissé groupe Bawol Média mooy ñaanal ñëpp koor jàmm ak salaam. jërë ngeen jëf yéen mbokk auditeurs yi suivre seen rajo Bawol Média FM ci diwaanu Touba Mbacké fréquence 97 point 1. ñu dikkaate leen seen émission ndogu ak Baol Média ngeen ne ànd ak présentation bi Mor Mbaye Cissé tey nag ñu fas yéene dala responsable APR bi di Serigne du Mbacké Bara Dolly e, jiite woon commité électoral bi nekk ci diwaanu Xayra sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi lay déglu ci Baol Média FM. asalaamaaleykum Mor Mbaye ñu ngi lay nuyu ak ñi lay déglu ñëpp e, di déglu rajo bi nga xam ne tamit bu am solo la e, ñu ngi leen di siyaari ci weeru koor wi. di ñaan yàlla it jaamu yuñ ci jaamu yëpp suñu borom nangu ko di ñaanal suñu xalifa xalifa général di murit euh, sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul mu mu yàgg fi lool ci wér ak njabootu sëñ Tuubaa ak yëpp di ñaanal mboolem xalifa bu ne ci réew mi ak mboolem jullit yi. sëñ bi ginnaaw politique bi ngay yëngu aussi itam ñu gisoon benn xale bu réer man na deux mois ak yooyu noonu ñu la ci doon tudd am kàddu yu ci doon yëkkati mën nga ci revenir brièvement ci loolu noonu parce que actualité waaw loolu moom gannaaw bi wax ji amee. Euh, avant loolu damay wax li ma doon ci xale bi xale bi sama sët la euh, may yor maamam sëñ Modou Boussa Dieng moo ma yar euh, moo ma tudd tuddee ma boppam moom ci jëmmi boppam it fépp fu mu mas dem ci daara alxuraan moo ma fa yóbbu man ak ay rakkam ak i doomam ci biir lu mel noonu moom bi loolu jàlleet Euh, lin bokk ci sëñ Tuubaa it kooku du ma ci sori ndax Abdou Khadir mooy magi Mamoor Anta Sall yi soxna Fatou Dia mooy taawu sëñ Tuubaa sama maam it bokk na ci ñi ñi nga xam ne fekke woon na sëñ Tuubaa gànnaar bokk na ci ñi nga xam ne it sëñ Tuubaa liggéeyloo noonu ci Ceyeen ba boolee sëñ Moor Soxna ak sëñ Modou Moustapha ci benn laal boolee sëñ fàllu ak sëñ Abdou ci benn lal kenn ku ne nga bindal ko kaamil chaque weer ba mu doon juróom-ñaari weer kenn ku nekk am juróom-ñaari kaamil mu boole ko muy 28 kaamil loolu lañ lii moo euh, Touba gi mooy moo tax ñuy wax 28 ba ca euh, Touba. kon loolu euh, mooy sunu wàccukaay boo taxawee ci jumaa ji boo xoolee kër yi ko foofu gis sama kër maam loolu tegtal la ci lan laa war a doon ci Touba kon am nañ fi cër ci mbokk waaye am nañ fi cër ci ku maamam di génn nañ Touba. loolu nag ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax ca loolu it loolu la ñuy dund ba tax na dëkk bi it mbokk yi ak ku man di doon it ñun loolu la ñuy dund sëñ Tuubaa bi ñu ko gëmee ba noppi danoo xam ne am nañ ab cër Tuubaa loolu nag lu ñu yàlla bindee la ci noonu la ñuy xam nañ suñu bopp xam nañ kin doon. ngeen nekk mbokk ne nekk aussi kilifa diine en même temps lan moo waral coow li waaw li waral coow li foofu euh, moom laay dikk ndax dama la leeral mbokk gi ba pare. Euh, euh, wax naa leen léegi tamati euh, doomi sëñ Modou Bousso Dieng mi ngi nekk ci sama kër tey jii mën naa la wax ne yaayi xale ba ak papay xale bi sax mook sama taaw bii ñuy wax muslim Mbàkke ñooy ànd ñoo daan ànd ba bëccëg mën naa wax ne it ne xale bu jigéen bi yaayi xale bi it sama doom yi tamit da daan ànd ak ñoom muslim ñoom ak ñooñu kon jàpp naa ne ci biir famille bi benn famille bi la kon jàpp naa ne lépp loo xam ne waruñu ko wax ci kër ga xale ba réeree ak kër gii ñu koy tudd it jàpp naa ne ñaari kër yi benn la du ñaar ndax euh, ku tudd sañ sëñ du Bara Dolly euh, tudd sëñ Bara Dolly da nga tudd sëñ Modou Bousso Dieng loolu yàlla def la ca doomi sëñ Modou Bousso Dieng mi ngi ci kër gi samay doom ak xale yooyu ñu loolu nag wax la yoo xam ne jëg na bi muy jëg ci ay élection la ñu fekk euh, bis bi nga xamee ne élec avant yi coow am na sama digg ak ñoom ndax dem naa def sama ubbiteelu campagne def ne xaayara dafa am borom sëñ jili mooy borom ma dem ci moom waññi kuwaat def ay tournée ci ñaari ñetti kër man noonu wax ne dem naa kër sëñ Mourtala mooy maami xale bi mooy jur bàyyi xale bi yaakaar naa euh, euh, foofu laa laa fi demaat te ba ma fa dematee sëñ Mourtala moomu def nu discours discours ba muy def ba mu koy def bëggatoon ñu génnee ko man waxoon naa presse bi ne bu leen ko génnee ci ci kanamam ñuy dégg ah mais comme que journaliste moom information lay lay lire génnee nañ ko yabal na ku ne wax Modou ñoom mu ñëw ci man wan na génne gi neexu ko ah wan naa ne ko loolu kat waxoon naa ko ci seen kanam du man maa ma maa leen wax ñu génnee ko. mu toog ci suba sa jël téléphone woo ma na ma kat naa ko ndax génne gi waruñu ko ndax ma ne ko ah sëñ bi ci sa kanam laa ne leen woon arrêté leen ko. mu ne ma ah man de am naa ci lu ma metti ndax ñi ngi may woo di ma saaga ci waaw la mu waxoon ci kàddu yi mooy discours ba de caa wax ne dana rus ñu parti pouvoir bi di perte élection yi fii ci Touba kon nun mën a def ba Macky Sall gagné élection yi nan ko def loolu discours bi loolu na def nit ñi di ko saaga ci internet bi ak njaboot tamit am ñoo xam ne gisuñu ko noonu ñu def am euh, euh, ñu dajaloo ci moom ñëw ci moom wan ko na ko lu tax ñu génnee ko am ca lu leen naqari ba ne ba ne woon dañuy ñëw ci dañuy ñëw ci man moom mu aaye leen kon loolu ñetti fan la avant xale bi di réer loolu bi ñu ko amee tamit moom wax ba lool dama ne ko mënoon nga leen a bàyyi ñu ñëw ndax jàpp naa ne wax ji du man maa wax micro yi la la taal ci micro yi boo gisee image bi moom moo waxal kenn waxloo ko moo wax ay ay ay ay gis-gisam ak point de vue kon jàpp naa ne loolu amul lu ma ci topp man la ma waroon rek mooy dem ci ñoom siyaare leen ubbi nañ élection yi waxtaan ak ñoom wax nan kon foofu loolu loolu dañ ne xale bi yow yaa da nga ko séquestré sa kër waaw léegi ñu wax ne euh, la ko indi foofu laay ñëwaat mm-hmm. euh, bi nga xamee ne ñetti fan jàll nga euh, ba ko ñeenteel ñu am réunion man ak ab Lahad Ka ak Cheikh Abdou Bali ak maam xari ak euh, Abdoulaye Sadag ak leneen ci ay responsable yi doon coordonné yi doon coordonné laa wax les coordonnateurs yi doon coordonné le les le le les les onze cent mm. onze onze comité ñu am réunion fale ca asalem kër asalem ndax danoon nan dem fu wéet ñu toog fa asalem kër Abdou Lahad Ka ban fu waree am réunion am na ñu jotoon a dem sax mujj gi ñu toxal réunion bi man bi may ñëw sama kër comme que maa ki doon maa ko doon coordonné maa ngi ànd ak samay sécurité ci benn oto bi beneen oto bi 4x4 bi ma nekk ci beneen oto bi bu sëf sécurité bi ma ñëwee ba ci sama buntu kër ci laa yem ci benn groupe xale yu jigéen ak lu toll ci ñetti xale yu góor ma gis sama soxna soxna meen di seen bàjjan bokk ak seen baay muy papay xale bi ak yaayi xale bi bi bi xale bi réer ñu bokk ak moom benn baay muy sëñ Modou Bousso Dieng ma fekk sama soxna soo di jéggi di leen wut si ci potolamp bi jàkkaarloog sama kër. dañoo bari woon war na noo mat euh, ay ay ay six wala sept personnes. am na ñoo ci ah, waaw maa ngi dikk ci loolu. bi mu leen bi mu kii euh, bi ma ñëwee ba seen leen. Euh, ma seen sama soxna si di jéggi di wax ak ñoom yor naan sama doom bi nga xam ne mooy ñoom a ànd mu koy laaj portefeuille am hmm. bi mu koo kii ma ko yow loo ma ki laa stoppé taxaw ci seen wet na ko yow looy laaj portefeuille ak fan ngay jëm ci guddi gi. ki la ne ma tuuti baara mii ba mu ne ma tuuti baara ci laay soog bàyyee xel bi mu ne ma tuuti baara laay soog a xam kat mooy tuuti baara boobu laay soog man a gis ci li ma gis ndax du sama génération ay baayam laa daan àndal euh, euh, gone la bàyyi ma ko xel euh, ndax ay ay ay baayam laa daan àndal ba ci baayam sama xarit la woon ba tey bokk na ci formation boo xam ne moom baayam moo ko def ci man parce que ñoo daan ànd ci lu bari mu may jox ay conseil muy sëñ baaram sëñ Modou bu sëñam lu mel noonu bi ma ko fekkee ma taxaw ak gone yi maa ngi sax lenn ci xale yu góor yi nga xam ne ñi ngi àndoon ak ñoom di xaw a yundul lu oto bi ku ci naan ma PDS la kii naan ma ay Macky Sall la nekket man peut-être ma ci woon attention bi sax. laay ci ci ci 4 jours 5 jours campagne rek. ci la 4 jours ci laa eh, gis ñuy xool noonu bi nuy xool di wax loolu nekkati boobu ñu ngi yundul lu oto bi sax di xool xeeti xale bi man ko comprendre ma ah. ma ma taxaw noonu ne soxna si fan nga jëm. mu ne ma xamoon nga ñooñu noonu. Mm, waaw parce que xam am naa ci doomi seen jiili yu ma xam. Mm. ndax sama njaboot lan moo sama ñoog samay doom a ànd. mën naa xam sax tur leen bu baax. Mm. mais xam naa ne ci njabootu euh, waa kër sëñ lan parce que ñu ci bari dañ leen ñëw fii ci sama kër euh, ci sama ci samay. sama mais loolu moo la xiir léegi ma foofu foofu damay ñëw euh, ñu ne ma kee ñu moo doon wax naan xale bi jooy ci biir kër gi xale bi la man leen lan mu naa ah, leen dugg leen kër gaa ngi noonu man maa ngi ci plein campagne ak réunion tëluma koon ma ne soxna si fan nga jëm mu ne ma damay ànd ak ñoom wane leen ci benn sëriñ buy seet euh, fii laay dem yóbbu leen ah ñu euh, pour ñu xool xale bi fan la ne. sama doom sama musli mi ànd doon xaritu bàyyi xale bi ba pare tam tamit doon xaritu euh, tuuti yaay xale bi ñu ndax même génération bi mu ngi ànd ak ñoom ak sama doom ñu dem di wëri ak sama soxna man mu continuer dem ci sama sa sama quartier général. quartier général boobu maag waa xaayira gépp fa nekkoon ndax man bi may def tournée ci début bi ay doomi sëñ Modou ngi ci ay ay ay ay délégué de quartier ngi ci ay ñoo xam ne ay responsable lan nekk ci xaayira ñëpp xam leen ci xaayira ñu yore ci ay responsabilité ñoom laa àndaloon ci mboolem campagne bi. rapidement ginnaaw alors alors bi ma demee sama quartier général ci laa toog tuuti. réunion ba ñu war caa dem faf ñu fomm réunion bi ndax ñu bari war koo yëg ñu nar faa dajaloo mu nar a jur coow ko. Hmm. ci la sama téléphone sonné il était 23h. soxna mbeen doomi sëñ Modou bu sëñ di seen bàjjan woo ma téléphone ma ku ñuy wax Abdou Fata ak beneen paa ñi ngi ci kër gi ne xale ba leen di seet ma ne ko ci sama kër ma ne ko mais ne leen ñu seet na ubbi leen buntu yi seet man mu ne ma man kay nee naa leen ñu seet waaye dañ ne sax ah moom kay jëru ko xale bi urofee ne mu seexu naa rek muy bàyyi xale bi moo ne dégg na gone yi di wax ne euh, euh, xale bi euh, mi ngi ci kër gi moo taxoon mu ne nañ ñëw noonu rek laajte ba xam wala déet man leen noonu noonu doon leen ubbi man sax soxna men teluma ko parce maa ngi ay nitama ay nitama wër nii ñu ngi ci ay ay responsable alors foofu Euh, yëg na ne am na ku àndoon ak ñoom ku doon wax nag xale baa ngi jooy ci kër kooku sax bi ma dawalee oto yi ba daje ba taseeg moom ci bopp koñ bi bi ma la rombee groupe boobu ba ma yemee ci moom moom ci jëmmi boppam laa ne laa taxaw ak oto yi ak sikri na ko yow ndax xam nga ki moom kër gi mu ne pat ma ne ko xamoo ki moom kër gi mu ne pat ma ne ko ndax xam nga ki moom kër gi lu mu doon ci ci ci xale bi mu ne pat ma ne ko nii ngeen di def yéen rek daal di continuer man dem noonu laa continuer dem sama quartier général wax jooju nu du ma ne woon du ma ci wax ndax ñu dañuy def politique sa adversaire heure bu la bëggee faiblir wala mu wala mu bëgg may ma may ma mu ñëw loolu après la loolu après la maa ngi ñëw ci loolu heure bu la bëgg faiblir dalay lay créer nga necca di coow moom mu nekk di liggéey ma ne non lii ay problème politique la lu nit ñi di def ak di di kii mais jëluma ko au au au sérieux ci sama campagne ñu ciy wax nungutuma ci ñu ciy wax ba mu am campagne bi jeex maa ngi dégg remorque bi waaye waxatuma ci. remorque bi mooy. ñu bari ne dama koo téye ci sama kër mi ngi ma denc ci sama kër. loolu maa ngi koy dégg ñu bari ne dama koo sëf yóbbul ko président parce que dañ koy sacrifier ci élection yi nangam nangam yi ñaari rumeur yi la nit ñi doon wax ci dëkk bi. waaye comme que man mbir la moo xam ne nii euh, bëgguma di di ci concentré. parce que non mënuma ko parce que ay rumeur la. rumeur booy porte lo porte porte plainte x et puis maa ngi ci ay élection ci élection présidentielle c'est sérieux du ma lu ni caaxaane waxtu woowu doonut lu yoon mayu ma may ma mayu ma di waxtu yooyu amuma benn minute sax di concentré ci yooyu amuma ko ndax élection yi ñëpp xam na ni mu demee woon bi élection yi jàlle non mënuma sóoraal yooyu parce que am na détails yoo xam ne ak famille bi nin jaxasoo ak nin ànd nekk benn ak lin bokk yaa di détails yoo xam ne man jàpp naa ne ay waxi gone la ba tax na bëgguma joone perdre sama temps ca hmm. maa ngi ci leneen loo xam ne nii permettre moom ma perdre sama bind ñu demee nag ba élection yi jeex ñaareelu fan bi la benn maire ñëw fii ci sama kër wax ne ci kër gi xale bi réer la jege muy kër euh, sañ Baar mu sëñ Modou bi ñëwee ba egsi dikk ci la ma seen bàjjen bi ma yor muy soxna benn na ma maire bii day nee na yow la soxla woon fekk ma wàcc ci ma nekk ci kaw bi ma wàccee yem ci ci saal mu ne ma maire nee na yow la soxla woon ma ne ko bisimilah ci kanam seen bàjjen boobu mu ne ma ah génnee ñaari téeméer na dama la doon siyaare cee sàkku ñaan ndax dan maa wax ne ma su ma ñëwee ci yow soo ci ñaanee rek xale bi dana feeñ ma ne ko yow foo jógee mu ne ma kër gi xale bi réeré kër sëñ Baar mu sëñ Modou ma ne garde corps yi mun naa mën ko ubbi leen oto bi ngeen xa dugal ko ci oto bi mu xaar ma mun naa mën ko maa ngi génn ñu yóbbu ko euh, brigade euh, recherche. ah lan moo tax loolu. waaw parce question bi la ak ci remor bi. Ah, boo nekkee sëriñ da nga nekk may ma may ma ma ñëw déedéet déedéet du du ko ndax romb na ay kilifa diine nit ki bu fekkee ñi ngi lay jiiñ tuuma wala di ay remor di am ci yow moom mu jigee ci kër gi remor yi am ñoom ñoo ko indiqué kër gi fi mu toll. ñoo ko indi kër gi fi mu toll moom mosu fee ñëw ñu ne ko boo demee ba ci kër gi ci jàkka ja boo tourné nii bu dikkee du ñaan loolu du ñaan lu si léegi ci loolu laa ko yóbbu bu ma demee def ne damay def plainte foofu commissariat wala. Euh, brigade recherche bi nekk. escadron bi ba ma demee ñu xamal ma ne sëñ Modou euh, il faut ñi ñëwoon sa kër. Hmm. ak ñi nga xam ne tamit tuddoon na ne xale bi mu ngi ci sa kër boo leen xamee ñoo ñu ngay port plainte hmm. ñu tomp enquête bi ba egsi ci maire bi nga xam ne moo moom moo wax loolu. Hmm. ca jege ci kër gi ñu bi. bi ñu waxee loolu man leen koon amul problème ñu ne mag mënuñoo téye maire bi ci leen ko bàyyee. man ma ànd ak maire bi maire bi di wax wax na ba ma indi ko yeewi ko bàyyi ko dem. mais ci daal di préparé woo visé. visé ñëw ci sama kër gi defal ma ko constat ma fay ko trente huit mille francs. bi ma ko fayee ba pare ci laa wàññi ko def benn plainte pour contre. pour euh, non waxu moon x sax bi may def plainte bi ah, dama ne ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci kër gi di ko seet muy ngóor si sama doon doom ci man muy Abdou Fata ah. ndax Abdou Fata moomee bis bi nga waaw bu baar sëñ baaram sëñ Modou euh, ci mook sama doom yi ñooy ànd ca euh, man mii di wax ak yow bis bañ koy tudd lan ko doon tuddee 2 millions yañ cee financé sax ci sama loxo bii la tege woon foofu teg ci. kon tey ku mel noonu doom la ci yow ak lu man a xew. léegi nag Abdou Fatah moomee dafa am lu ma jël ndax bis bi nga xamee ne ñi ngi may wax ne ma ñëwoon nañ fi ca bëccëg ko woo téléphone. na ko Abdou Fatah da ngeen fay dama dégg da ngaa ci kër ga di di di di di seet xale bi mu ne ma waaw ñëwoon naa fa ma ne ko ah yow de jàpp naa ne bu fekkee ne jàmm la war nga faa ñëw seet lu man di doon. ndax yaag samay doom yéen a yem ci kër yéen fa yem atte ah waaye bu fekkee ne seet la ngir lu lu lu lu ñaaw walla lu lu bon boo ko jeexut ci kër sañ baara googu jeexu ko kër sañ mu taa waroo ko jeex sama kër ndax ñaari kër yi kër ñetti kër yëpp benn la mu am nu ma waxee wan na ne ma seexu naa mi bàyyi xale bi kilifaam mooy xalifaam seexu naa moom a nekk suñ doom ndax man ñoom ñëpp ay doom laa di jàppee wax ne bu ko yabaloon dana ñëwaat ci kër gi ndax mooy kilifaam man ko de boo bu fekkee jàppewu ma kilifa ba naan ma seexu naa bu la yebalee ci sama kër da nga fi ñëwaat en tant que kilifa kon loolu la day mel ne kon la ma doon ci yow xamatoo ko ba tax na bu boobaa de boo ma laajee sa baay yi nga xam ne sama am moo ñu boolee yar bu boobaa doo wax baat boobu nag maa xamul nag da doon gone est ce que amul ñu fi may ma ñu fi ñëwoon nga nga ne leen bu ngeen fi duggee ma ne foofu laa ñëw man man du man duma ma kuy def loolu man duma ma kuy def loolu rawatina ci biiru fami waaw waaye nag nit laa koo xam ne am na ñoo xam ne bu jógee ci àll bu bëgg a dugg fii ma jamaarloo yow sama kër la violation domicile waaye am na ñoo xam ne ñi ma bokkal xaayare nga xam ne ay mbokk la bu noo dugg dugg sama kër ak seq ak man di ñëw ci samay doom du leen ko wax waaye kuy dem di jeex lu bon di ko wër lu bon di ba ko tuumaal nga jógee ci àll ba jë bëggal ñaak sama kër na da ko def aaw ah oui loolu loolu moom permettre ba ko personne foofu ma ma ñëw foofu foofu euh, loolu honneur nit ki la nit lépp loo jël teg ci sa der bi rek rafet gu ko teg ci sa der koo xam ne moo ko sa kilifaayam kon foofu moom euh, jàmmaarloo moom du ko def ak ñooñu du yàgg-yàgg ba ma def ko ak ñoom li fekk li nekk suñu diggante ñu ngi koy sàmmante buñ ko dee sàmmante du am ku ba ilaa yu mi waaye nag keneen ku man di doon bu sàmmante loolu ne ne day dugg sama kër ci loo xam ne lu ñaaw la ci jublu wala lu bon kooku moom beneen affaire la euh, kon foofu yaakaar naa ne ñun liñ bokk wala liñ seq nga xam ne seen maama ma yar tuddee ma boppam yëkkati doomam jox ma jaar ji ma jëmoo fa dem ma yaroog ñoom ñu xama fii yaakaar naa fu ma mën a dëkkalee faneen lan ma war a mën a dëkkale waaye yaakaar mu ne foofu war na war na ma ko bu doon ko dëkk ka sant ba euh, waneen sant sax dëkk faneen war na maa mën a séntu ci néeg yu mel noonu ak ñi nga xam ne maa ñoom bu ñu jaar rapidement est-ce que jàppoo ne cas bi fi mu ne lu géré la wii ko dig ngi nañ fi ba def sa kër fuuy ak yooyu yëpp est-ce que jàppoo ne loolu lu sérieux la léegi mais lu sérieux wut lépp loo fi gis ci àdduna rek lu sérieux la lu dëgg ak lu dëggut ndax ay nit ko bu dee lu dëggut nit a koy formé bu dee lu dëggu la lu sérieux la lu am la. kon kon wàcc bi ñu fa wàcc da metti ma metti na ma. mais dama lay wax metti na ma méttiwu ma. Mhm. metti na ma seenu ñëw dana setal dana ma dana ma joxit dana ma joxit lu wane ne man euh, euh, euh, ñoom li may jiiñ ne ma ngi ma tëj sama kër ci kër gu toll nii kër gii ku fi ñëw. gone yu ndaw yoo xam ne ni ñoo tolloog aasu xale ba ñi ngi fi ñu ko gën a tuuti ñu am un an mi ngi fi ñu ñu am ay quatre ans ay cinq ans ñi ngi fi ah mais ci dëgg-dëgg bu ma koy denc fan laa mais est-ce que ci am ay doom yu ndaw may ma ma dikk kon kon kon dama lay wax dara euh, du ma sogee ndax man xam nga lan laa am problème mooy damay roy ci ku mel ni Seexul Xadim fii leen taxaw tey ne euh, ci Daaru Manaan gi nga xam ne sori mu ci man ne ci biir quartier Daaru Manaan dikk ne ay arme moo nekk ci këram gii yabal fi ay soldaar ñu dugg fi di di ko di ko di ko di ko wat anamu tey anamu tey kon tey man bu fekkee ne waa dégg ñëw la may ma ñëw may ma ñëw déggoo li ma la wax dama ne la ñoom mën naa nekk hmm. parce que c'est normal waaye man laa la wax à personne man dama laa wax ne ñoom ay tant que man a personne hmm. amul benn tuuma bu may teg loo xam ne dañ ma koy teg ci duma dawal sama xel ci ñi ma jiitu woon am amaa nag sama njaboot loolu foofu laay ñëwee ne loolu mooy li ma naqari mm. ndax ay gone lan bokk ak ñoom ay at daan doo ay xarit ak ñoom daan ànd ak ñoom di jaxasoo ak ñoom kon lu mel noonu bu amee ñoom dana leen da di metti il paraît que sa soxna da koo da metti waaw waaw parce que loolu keneen ku mu doonoon mu am mu am keneen ku mu doonoon sa càmmiñ sa càmmiñ bu ay doomam wala ñu demel na leen defee ay groupe wala ñeneen ñoo xam ne ni sa bàyyi lan yaakaar xëy na wala ñeneen i nit ñi ngi wax ci koo xam ne ci koo xam ne mooy sa borom kër nga am ak moom ak njaboot njaboot yooyu nekk ay cousine ak cousin ak ak ak yaay yaay yaay bàyyi xale bi ak yaayi xale bi bi loolu kay moom moom en tant moom mi nga xam ne lu ma leen jege jege jege ci ak mbokk moomu leen gën a jege. loolu moom dana am impact bu mu def ci moom ndax bi mu yëgee ne convoqué ak yu mel noonu kay euh, tension ko daal ba mu dem hospitali euh, hospital ko jànnatu kon loolu nit la ak yëg-yëg la mais yooyu yëpp man pour man li may delloo xel rek mooy santaat suñu borom tabaaraka wa taala diggi dem bi ñu fi dikkee vendredi passé bi ñu fuyee sa kër ba noppi est-ce que eh, gis nañ fi dara indice loo xam ne. Mm, ma ne eh, buñ ko gisoon kay ba léegi kon duñ ma fi bàyyi. Mm. Ah, waaw <laughs> waaw dig kay bu nit kay bu ñëwee fuyee sa kër gis fa lu indice wala loo xam ne kii la kay da lay yóbbu da lay yóbbu du la fa bàyyi ah, parce que loolu lay wër. kii war dara kay bu fa fekkee lu indice kay loolu am waaye dama jàpp ne sama kër gii. Mm-hmm. ma nekk fekk sama njaboot yor fi ay doom yu ndaw. Euh, loolu koy yaakaar naa ne ab xale xanaa doo ko fi téye di ko fi nekk loolu yëruwul maanaa sax beneen bi ci des ñeneen ñiy wax na it ne dama ko jël yóbbu ko président dañ koo sàkk mais arrête man du ma doon doonu moon ab candidat président moo doonu ab candidat te jàpp naa ne président bu ab jullit la di ku gëm yàlla yaakaar naa bu doon bu ñu demoon ba ne du jullit sax gëmu dara ngir bañ guñ ko bañ ba man dan maa bañ 50 pour cent loolu lu am la ñu bari ni ma yàlla bi ne neexu leen ci dëkk bi mu doon ay sëriñ ak it eh, parce que taalibe yi leen wax ndax taalibe yi ci sëriñ si rek la ñuy liir ah waaye am na yeneen cinquante yoo xam ne président leen bañ. bañ googu ñu ko bañ nag bu taxee ñu ne xëy na sëñ Modou jël na xale bi yónni ko président président bu doon soxla yeneen gone feneen la sëñ Modou. Ah, pour ñu jàll. ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission Ndogou ak Baol Média di ci ànd ak Mor Mbaye Cissé ñu ciy dalal responsable APR bi di Serigne récemment que am na show yu ñu doon yëkkati ci moom ba mu waraloon dig ñëwoon fi vendredi passé di nu xal këram ak yooyu noonu ñu ne nañ ko commencé mais ginnaaw la dégg nañ sa i kàddu nga il paraît que euh, dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñan nga jàpp nañ ñoo nekk ci ginnaaw ay politiciens wala ñan nga ko jàpp. maanaam gis nga El Hadj Mor dëkk bii di Sénégal lépp loo fi gis mu dal ci kilifa rek bu ko kilifa ga defut déglul fi may waxee bu ko kilifa ga defut mu doon ay mbir yuñ ko teg rek jàppal na am na ay nit yu ne ci ginnaaw mu doon ay sëriñ wala mu doon ay politiciens haut niveau. haut niveau nag laa lay wax haut niveau. alors ma xam nga yaakaar xam nga ñaar ñetti mbir rek a mën ñetti mbir yi am politiciens yi mën naa doon politiciens yi mën naa doon it sëriñ si nga xam ne loolu ñuy wax naan euh, euh, euh, bu nee diw ñu ne dafa kii ñu ne xolu doomi soxna la yor loolu day am loolu la yàlla dogal ci sëriñ si. beneen côté bi ci desit it euh, mën naa doon nit ku la bañ ku bañ moom bañ na la ak koo mën a doon moom ku bañ na la kon ñett yi arme yi fu ci nekk fu ne bu taxawee war naa mën a jur lu ne waaye man li ëpp solo mooy sama conscience tranquille bi ma am. mooy comme que ay wax la ay wax yàgg naa dal sëñ Modou day jëkku ci waaye xëy na wax bi ak fi mu amee moo moo moo moo moo am lu ma ca metti parce que weesu nañ fi sëriñ sëpp cité ma wala weesu nañ fi politique yëpp cité ma rawatina ci diggante kër yi ni mu demee ak diggante bi ni mel loolu bu ma ci amee lu may xaw a metti loolu la waaye dama koy delloo rek ci mbirum suñu borom nangu ko ak fi mu daan jaare gaa yu baax yi. sëñ Modou wax ji dal na ci sa kaw. est-ce que boo geesoo ci ginnaaw di nga gis ñi nga xam ne que ñoom nga bokkaal APR ci mbir mi ñëw nañ defal la wala massa waaw waxtu wu ne sama téléphone gi sonné. waxtu wu nekk responsable yu bari ñu ngi may woo di ma na ne parce que xam na ne mbir bi ay xëy na ñu ci bari jàpp na ne liggéey bu mag def nañ ko ci élection yi. ñu ci bari jàpp nañ ne war na noo mën a am benn récompense ñu ci bari jàpp nañ mais mu ñu man fa may ñoom fa ñuy xoolee man bokkatu fu may xoolee. sëñ Modou Bara Dolly mi ngi dox di dem sans nomination sans dara. ci ñi am na ñu yor ay nomination yoo xam ne du ma seen morom tey du ma seen morom ëllëg. ci côté yëpp kon man li ma yàlla defal defu ko sax ci ay nomination kese kon li ma yàlla mayit mayuma ko kese ci ay nomination fu ma génn gis ñu gis ma jàpp na ne ah, maanaam waxuma la nomination waaye fa ma fa fa may xëye sax yaakaar naa ne jàpp na ne ab roi bu taxaw mooy ñëw fu muy dugg fu ne kon loolu lu ma Sëriñ Tuubaa defal la Sëriñ nag bu la bu bu la mayee ay cër il faut nga jël ci cër yooyu maanaam ñu lay teg ay tuuma tamati tuuma yooyu bokk na ci yi ma donn ci ku tedd ki ndax yii ñu may teg yépp ñi koy teg sax ak di ko wax ñoo gën a xam ne amul. donc sa plainte da koy retirer wala ñooñu da ngeen di topp. Euh, non plainte contre x moom man dam loolu laay def parce que ci wax ju ñaaw ji may dëkkale. ci nekkuma fa la ci des nag dinaa ko def jébbal ko yoon pare ca ndax bëggoon naa ko def sëñ Moutala na ma ñaan ma ma bàyyi ko ah na ma njaboot gi say njaboot lan lu ci man a xew ci ñoom ëllëg bu ñu ko amoon feneen yow yaa leen di lijjanti kon booba laa ca pare woon. sëñ Modou ginnaaw loolu ñu delluwaat ci wàllu politique bi bokkoon nga ci kàngam yu mag yi cinq sages yi yéen a nekkoon ci comité eh, électoral bu gox bi nan nga dundee seen défaite bi nga xam ne am ngeen ko ci élection yi. waaw foofu li ma fiy tudd. mooy euh, li ñu dundee defet bi defet bi defet la mais. xëy na ndax lu la bett la. non bettu ma parce que li tax bettu ma. ak li ngeen fi campagne waaye déedéet campagne nan waaye bit xam nga liggéey booy liggéey bu liggéey jotee dangay liggéey ba liggéey da ngay ba liggéey fu dara nekkul donte xam nga ne da doo ko gañee ndax li tax loolu am mooy lan ñun ci suñ jëmmi boppam sukkandiku sukkandiku nañ ci ne président liggéey na liggéey bu rëy ci dëkk bi kenn umpale wu ko. ñun ñi fi nekkoon it wàcc nañ ci terrain bi liggéey liggéey bu rëy kenn umpale wu ko ñun ñi ci santoon mbàkket saaga nañ ñu traité nañ ñun ñu wax na nu ne kenn umpale ko mais ñun am na ay ay ay ay maanaam bu doon bu doon ay ponk ma ne am na ponk yu koy complété yu tax ñu gañe ko ponk yooyu moo fa nekkut ndax ab dëkk yéen gañe yëpp wala parti bi am fa doole ay nit a fa nekk ñu jox leen ay poste de responsabilité ñu seq koog nit ñi di ko def ci nit ñi awaa ay élection di ñëw ay élection duñ bàyyi ba ne suba ñëw na rek nan leen jox ay moyens ngeen wàcc ci nit ñi déedéet nit ñi meluñu noonu nit ñi da koy jox dangay dem ci ñoom ci seen i soxla seen i yitte ànd koog ñoom heure boo leen soxla ma dama ne la déggoo li ma la wax ne la kuy liggéey da liggéey parce que dafa bari arme yoo xam ne manqué woon nañ te yàgg naa lancé fii naan ab xeex ci leen jëm muy eb ger ci campagne bi dafay laaj ay arme yàgg na maa wax fii ne ab commandant la sa ay bal yàgg naa ko wax kon kay kay kay jub ab guerre kay naan ab ab commando laa man naa xeex waaye jox leen ma ay bal jox leen ma ay bal joxuñu ko ay bal bàyyi ba di ba ba élection yi ñëw ñu jël ay faux bal yoo xam ni poudre la jox la ko foo jëm. mais lan moo tax kon campagne bi ngeen xamee ne que leen fee gagné banku leen seen i loxo mais gis nañ leen ngeen kii parce que gis nañ même ngeen jàppanteeg opposition bi ñu leen di ay 28 ngeen jàppanteeg ñoom yooyu yëpp yoo xam ne que seen i seen yëpp mënoon nañ jaatoñ ngeen def ko Mor Mbaye ñun lu nekk nekk nañ ci loolu ngay wax lépp jànkonte na nu moom ca 3 heures du matin la ñuy tëdd parce que yow 8 heures du matin waaye gis nga loolu lépp am na résultat bu mu joxe Mor Mbaye mais mosuñu egg ay 67 68 mille mois ci dëkk bi ci ñun suñu 67000 voix yu 68 moom 8 mois 68 mille yooyu bokk nañ ci 11 départements yi nga xam ne yi nga xam ne laa wax ñu ëpp taux di kii wotant ci ñoo ñun suñu 60 millions yooyu nga xam ne am na moment yoo xam ne ñu ngi doon wax naan sax bu ngeen amee wee baax na bu ngeen amee nag ñu am 30 pour cent mais wee yooyu bokk na ci li élire président Macky Sall 30 pour cent yooyu 30 pour cent yooyu bu ñu ko jëg yéenoon ci li élire président Macky ñu dem mu def deuxième tour kon ñun bokk nañ ci lefal président Macky Sall ci liggéey nan guddi ak bëccëg ci ñun bépp responsable bu nekk ci Sénégal ci 45 départements yi xam nga wax naa leen ni bokk nañ ci 11 départements yi ëpp ay wotan léegi ana 30 34 euh, départements yi ñoo leen jiitu ba ci ay ay régions euh, demal euh, nu ñu koy waxati dëkk bi ay ay Kolda ay ay ay dëkk bi ci des bi dee na Kolda ay. Tamba mais nee nañ dëgg président ne ko dinañ leen. ma ne xoolal. musuñoo wax ne ma ne ñun danoo doon liggéey dama ne la da doon liggéey waaye musuñoo musuñu wax ne mais kuy liggéey sax. mais am na sax naataango yu promet doon ba tey ñoom mais déglu ma ñoom danoo am yaakaar ne dañuy gagné ku ne am nga droit am yaakaar waaye ku am expérience politique xam bu baax politique xam ne am na lu ñu manqué woon. déglu ma nag ku xam politique bu baax xam ne am na lu manqué woon. ca lu manqué woon dafa waroon a am lu ko jiitu beneen ba ca des. am na communication yu doon daw. yéen communication ci entre Mouride ak Tidiane. Ah. yooyu bokk na ci li ñu li ñu gën a gàllankoor. ci gox bi ci gox bi. parce que loolu nit ñi seetluwuñu c'est une technique politique yoo xam ne ni. ay ay ay ay responsable politique yu yu position bi yoo xam ne ay position bi ci leen bokk ñoo doon mané cet combat. mais yéen tam en tant que responsable bokk ci pouvoir ami moyen lan moo tax defu leen beneen pour pour déjouer seen plan non mais ñi ngi def mais Sénégal. pourquoi mu fii ñu nekk di Touba dafa am nu mel dafa am nu bindoo. ni mu bindoo mooy côté muridisme moo indi nañ communication bu woon ne Idrissa nekk na jébbalu na tuub na murid la nangam nangam ci Idrissa ay mauvais souvenirs rek la am pour toi. mais comme que loolu la dugal ci boppi nit ñi dëkk bi mën na wax ne 80 pour cent yi jànguñu communication boobu ñu mën a nag biñ ko mënee ci diggante bu mel noonu ñun fan la nekkoon li ñuy wax amut def nañ ay communication wane ne. li ñu nekkoon di xiiroo ko ŋaayoo ci seen. biir élection yi moom xiiroo ŋaayoo bëriwutoon avant élection yi man naa am. Ah, mais élection yi bin xaajee dëkk bi ay non déglu ma rek bin xaajee dëkk bi ay ay ay ay man de son ba ma féetoon amul xiiroo amul ŋaayoo man sama son. man sama son ba tey maa ngi nii ah, maa ngi ñoom yi toog responsable biir saas yi am na ci ñoo xam ne que doon nañu woon jaaroo taal non mais xoolal ah. biir saas yi moom ay réunion politique boo dem du man rek non yooyu du ma ci détail parce que euh, y a des choses yoo xam ne vraiment ci suñu gannaaw la nekk bu fekkee bépp réunion politique bu ñu def boo xam ne xuloo bi yañ cey def moom temps premier ministre ñu ngi na fi ngeen coow yéen ñaar ba non non non non déedéet loolu ku la wax du dëgg man ah, benn yoon laa coowoo ak maam xari kër Cheikh Abdou. pourtant fële nee ñaata kër déedéet damaa dugg nit ñi ma àndaloon ñoo ne dañoo bëgg a dugg premier ministre da am. nit ñi ma àndaloon da nga ñëw fekk mu yow déggoo li ma la wax nit ñi ma àndaloon non non non non déedéet ma ne yooyu moom c'est des informations fausse information ah, man man man man fu responsable yu mag yi dugg bu dee ñaar la wane ñett ci dëkk bi maa ngi ci biir man du du du ma ku ni tëjal buntu. lu tax suñ bi noonu la déglu ma man amut ku may man man sama fi ma toll ci parti bi weesu naa loolu nag yow sëñ bi man du ma fekk naa fi ki nga xam ne mooy dalli koor gi sax topp ma ci man du foofu sori naa dama lay wax ne la loolu ñuy wax faux problème la faux faux ay je dis ay ay information yoo xam faux man dama jigee tourné maa ngi jigee bis boobu gede ñëw ñu fekk ñu ne premier ministre mi ci kër fekk ma woo ko mu ne ma maa ngi ma ma excellent maa ngi fi. ma ñëw di dugg si ñi ma àndaloon di dugg ba ñi ma àndal di dugg fa la bus bousculade ba doon def ci porte ba laa indi premier ministre ay nit ñu ñëw ba ni ñëw na ko waa Kër Sëñ Modou yi la waaw noonu ci la coow la bare premier ministre dem waaye boobu man. maam xari keneen ak wax mu wax amu fa. mais est-ce bi dafa am stratégie bu muy politiquer mais nañu ne amul mbooloo parce que gis nañ même meeting bi amoon Mbàkke sa pancarte yoo xam ne que moo gën a guddale pancarte yëkkati ko moom nga defoon xam sa sànqaat ah, toujours booy visible est-ce que du loolu moo tax que président di ñëw ñu gis la ci kanam ne sëñ mu daal amul mbooloo mais stratégie politique la xam lu ñëw mu dekk na day bokk ci kanam waaw moo may yaakaar naa ne bu demee ci màggalu Tuubaa bi fi président di ñëw yéen journaliste yéen ko wax kenn waxu leen mbooloo mi fi sëñ Moodu dajale moom la ak diw ak diw ñetti nit ngeen fi cité woon bi président di ñëw ci eh, eh, eh, ci kii bi inigration bi kenn waxu leen. waaye déglu ma rek ma wax la kenn waxu leen. yéen journaliste yi laax yéen lenn ci yéen ma yow waaye lenn ci yéen. Ah. yéen a wax ne diw ak diw ak sëñ Moodu Bara Dolly ñoo fa gën a ëpp mbooloo. kenn waxu ko yéen ko wax de keroog bu président di ñëw fii ci élection yi muy bu déglu ma rek ma wax la keroog bu élection yi camp euh, di ñëw fii ci ci ci euh, Mbàkke di ouverture campagne yéen a wax ne sëñ Modou ak ñetti nit ca ñett ñoo ñeeñ moo gën a mobiliser wax nga pancart pancart nit ko yor du ay ay ay ay kon kay wax na ko Cissé Lo sax bañ na wax ne sëñ moom day xool fu mu gën a baaxee ah, loolu loolu du ñëpp koy def toog fu mu gën a baaxee kay ay protocole ba duñ ko fa bàyyi mérito fa gën a baax man moom jàpp naa fu ñu toog fu nekk moom ni ni dafa toog rek jàpp naa maa fa gën a mérito loolu de mooy problème Modou Bara Dolly waaw ginnaaw loolu itam seen défaite bi ñàkk ngeen élection yi sëñ bi justification nga ne Cissé Lo discours bi mu yëkkati woon Casamance ak moo tax ak président par exemple que moom ñàkk gim leen ñàkk a dooleel yenn poste de responsable bokk na ci pourquoi ngeen bëgg koo imputer Cissé Lo ak président ci benn mais man bëgguma débat bi sax di ko jëmali ci moom moom ngay tudd vraiment parce que euh, li ma ci wax lépp dafa bari ba bëggatuma ci di ci prononcé wax noonu naa ko jàll na ji élection yi jaar non dama ne pourquoi ngeen bëgg wuti non non non non pro xam nga nit xam nga nit da ngay di wax ci moom di wax ci moom ba mujj duto bëgg wax ci moom foofu laa tolloog moom. non foofu ci moom par exemple yéen défaite bi lan moo tax ngeen koy justifier foofu. déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax man man ak ñoom. dama laa wax fii léegi ne la. dafa bari ay ponk yu tax ñu perte. boobee nag ba ma koy wax ci jamono yooyu bokkoon na ci moom problème yi tax ñu perte loolu bokkoon na ca. ci bokk na ci ba léegi si ci ponk yi mais c'est pas le temps pour di di di. parce que parce que moom itam est-ce waxoon na département bi juré woon na sur le Coran que ne moom. loolu daal da bëgg a orienter débat bi waaye boo juré ni lii di ñëw ba pare ñëw di galgal nit ñi tamit c'est la même chose ne la nga yaa ngi ah, di nii jël na fee ne yow topp ci nangam du man dong la waxoon bari ni responsable yu mu fa ñoom ci seen jëmi boppam ay saas a nangam loolu kay ñun daal sant nañ yàlla bi ñu amee 60 000 voix moom moomu keneen ku mën di doon nekkoon na fi ci mosuñoo egg foofu kon nag ñooñu ay nit ko liggéey du ay pancarte kese wala ay ay nangam ay doomi aadama la. di leen fàttali ngi suivre seen émission Ndogo ak Baol Médias ñu ci dalal responsable APR bi di Serigne Modou nga bokkoon ci 5 sages aussi am nañu jàpp ne que 5 daal xeetu wutukaayu xaalis rek la mais amul njariñ yéen daal si séddoo xaalis yi ngeen fi doon nekkee ko même am na ay ay yu mag yu bokk ci parti bi ko doon xam. waaw xam nga. dama bëgg leeral tey li waral li waral cinq saas li waral cinq saas fii ñu toog fi lañ ko fi lañ ko xalaatee. Ah, donc yaa kër euh, non pas kër yemu ko boobu mi ngi njëkk génn non mi ngi njëkk génn ci baatu Cheikh du Bali fii lañ toog fii lañ toog biñ fi toogee li koy indit jàppal ne jàppal ne fii ci kër gi amaa may woote yàgg na maa woote ci unité ci parti bi di ko woote ca Sodaaf ca Sodaaf ban demee ba jub ci élection yit man ci sama jëmmi boppam continé naa di woote appel unité boobu ba fii ci kër gi def nañ fi ay réunion ñun responsable yu mag yëpp ci kër gi ay plusieurs fois maam xari malaat ka Cheikh Abdou ñun ñëpp waxtaan nañ fi. est-ce que loolu may ma ma ñëw may ma may ma ñëw parce que xam nga lu ko waral foofu laay jëw li indi saa si. ñu ne ñu toog bi ñu demee ba dernière minute xaajali ko bi bari kenn ku ne taxaw ne da ngay def sa comité électoral bopp ci ñu bokk leen lu ni xeex ñu xool ne trouvé nañ ne comité électoral yi Cheikh Abdou Bal day def bosam man mi damay def sama bos maam xarit day def boppam larka day def boppam même moment boobu Ablaat neewutoon day def boppam waaye dana moo Cheikh Abdou Bal yi ñooy ànd def seen bos ñu ne nag léegi jot na ñu toog waxtaan ci la ci la ci laa wootee fii réunion ñu toog ñun ñëpp fii ci salle bii lañ toog ñu ne léegi ma ne leen man léegi retiré naa dutuma nekk ka dutuma def comité électoral ñun ñëpp it nañ jéem a xool nan lañ trouvé man ma ma nekk médiateur ma arbitre bi ma arbitré ci arbitre bi bu ma doon arbitré ne nan xool naka la ñu war a def ci leen dem ba trouvé ne cinq yooyu. benn bi mooy man retiré wu naa kon quatre comité électoral faw ma am wala trois ci laa jige Dakar présente comité électoral ban defoon nga xam ne def nañ ci ñoo xam ne sax donte d'accord ñu ci wutaleen ci jox leen ci ay pastu la waxtaan ak ku mel ne Farba Ngom mënuma sëñ Modou jàppale ñu ci delluwaat Touba jéem a lijjanti lépp nekk benn ba ma ñëwee sama kër dugguma sama kër directement kër Cheikh Abdou Bali laa def waxtaan ak moom ba tënk wax ak maam xarit bu tënk wax ak laatkat bu tënk wax ak Sadak bu tënk. laat saa dagg boobu fekk na mu xaw a wéri di ci accident boobu amoon ñu joxante réunion sama kër bis boobu fii 23h fi la nekk sama kër gi bi ba ba ba 3h du matin presque man Cheikh Abdou Bali Abdou Lat Ka ah, euh, ak euh, maam xarit Abdou Lat Sadaga par téléphone lañ doon wax ak moom. bi ñuy wax di xalaat ñu ne comité électoral yi ci ñu ñëpp ñu bokk lu bëgg naka la nay def pour xeex loolu. ñu ne kon ñun na nekk ay président ñu ne déet ñu ne na nekk ay coordonnateur di coordonné nga xam ne ñooy coordonné comité électoral bi ñun ñu doon xëccoo ñu ne déedéet ci la Cheikh Bari ne saas de moom kuy magal la ak kuy kuy kuy kuy kuy kii mooy gën a weef ndax nit ñi toll na ñoom ñi am na ci ñoo xam ne boo ne leen président wala coordonné wala dara yéen danaan dañ ko bëgg a jiite ci la Cheikh Abdou nañ ko def saas ndax saas moo gën a weef ñu ne ñun léegi nan leen di arbitrer topp mbir mi di superviser liggéey bi c'est pas que wax na dañ leen di jiite. mais saa si yooyu noonu. am na ñu ne yéen a fal seen bopp. waaye déggoo mais déggoo déggoo dama laa wax ne la ñun ñun ñu doon wax ne ay comité la di taxawal ñoo ñu ñoo doon taxawal ay comité ñun ñii ñoo doon taxawal ay comité. ñu ñi ñi ci des ñëpp nangoo nanoo am ñun déggool ba nangoo ànd ak ci ñun ñi war a taxawal koo ci gis ku nekk rek déggoo naa kenn pour ànd ak moom ci comité yi war a am. kon foofu ñun liñ ci jublu woon jublu woon ñu ci woon wan ne nan leen jiite danoo bëggoon a defi comité rank nañ comité yi na nekk ay saas pour mu euh, euh, superviser affaire bi pour mbir mi mën a teg waaye du woon ñoo leen ji jiite ay nit kay bu tax taxawee dara ñu ne nan wate ñii candidat yi ah candidat yooyu kenn ku ne am nga ñu ànd ak yow ci ay responsable d'accord na yow yaay seen candidat candidat kii ñoo war a def dialogue kon koy nangoon ñoom nangoon na ne candidat ndax koo fi gis ku ne am na ci ñooñu ma la wax koo fi gis ku ne am na ku mu ci àndaloon koo ci gis ku ne am na ñu ñu àndaloon ñooñu ñu àndaloon nar nekk candidat nag ñoom ñoo waxtaan ñoom ci seen bopp ne nañ bàyyi candidature yi ñu waroon a nekk ay saas saas yi du ceege ni ñoo jiite kenn waaye duutu ñu def comité ay électoral benn comité électoral moo am xaalis bi ci yéen lay jaar waaw may ma ma ñëw la indi xaalis may ma ñëw alors kon biñ paree ci leen wax ne cinq saas yooyu nan def dëkk bi dix comités bi nee nan def bi dëkk diis comités ñu ne chaque saas doit corde doit xoolal duwaa superviser ñaari comité man ñu mii di wax a yow ñu jox ma tey xaayare gii ak nit ñi maa leen doon superviser Cheikh du Bali ñu jox ko Daaru Khodos noonu lañ ko tase Abdoulaye dagg Daaru Minam ak Gere ah Abdoulaye Kat Touba ah noonu lañ ko tasee ñu def trésorier Alla Sylla biñ ko tasee noonu ñu ne dëkk bi nag comité électoral yooyu nan fexe ba mu am ay président ak i coordonnateur ak i pour pourtant ñiy wax ñëpp na noo nekk foofee ñu nekkoon ca ko ci seen i ci seen i euh, zone seen nekk nañ fa ay président waaw puisque nee nañ may ma ma eggal nekk nañ fa may ma may ma ma eggal nekk nañ fa ay président ak i coordonnateur nekk nañ fa ay président ak i coordonnateur ci seeni i son yéen féete kon ñun li ñu doon jublu bañoon mu yàqu bëgg lépp nekk benn moo tax ñu tudd saa si donc saas yi nekkutoon lekk ay xaar mais lan moo tax. may ma ma ñëw léegi nag la indi loolu mooy ñun dëkk bii ñu nekk. xaalis bi fi daan ñëw danaan jaar ci benn camp. camp ban. camp wu Cissé Lo. waaw. ndax mandat ki mandaté bi amoon ci jamono yooyu ci côté boobu la féete woon. Cissé Lo da ko daaw séddale. non waxuma Cissé Lo du ko séddale man Cissé Lo tourne passe passe tourne la sa wër plus lépp concentré par le Cissé Lo s'il te plaît kon dama wax ne ci zone boobu la nekkoon. léegi ñun bi na ñooy nekk saa si yor suñ comité bopp. wo nekk ne ñun nan superviser ci leen man maa njëkk a porté combat bu ne léegi xaalis bi duutu ñu nangu ñu koy teg ci loxo kenn ci camp bu man di doon kon ñun nan fexe ba ñun ñi nga xam ne ay camp yu bari ñoo nekk suñuy gannaaw xaalis bi ñu koy jël suñu bopp di ko indil suñu bopp président nangu loolu jaare parmi jaare ko ci Farba Ngom ñu accordé loolu tax ban demee ba war a jëli xaalis suñu signature yooyu ñoo fa nekk muy man Latka maam xarit Cheikh Abdou Bali Abdoulaye Sadaga ban jëlee xaalis bi ñu nit lan doon def bu ñu jëlee xaalis bu ñëwee bu ñu dee dekk Cheikh Abdou dañ ko teg ci la ko àll la. boo gisee même ban njëkkee jëlee xaalis bu njëkk bi ñu ne waa kër àll si la ñoo tas ndaje ma fële parce que la boobu déggutoon message bi. parce que dafa am kenn ku ne woon ci suñu biir contrôle pour ñu jox xaalis bi euh, euh, euh, àll si la ci ñun ñu jël ko comme en tant que trésorier. àll moom moom ci jëmmi boppam ba mu ñëwee ak itam ñàkk ngaa ànd felay ci jëri ji xaalis bi moo taxoon tey suñu ndaje mu njëkk may ñu yàq ko ñoom te ban ko yàq erreur lañ ko yàqee. Hmm. parce que dama lay laaj nit boo ko tànnee comme trésorier waaye yow boo jëlee jëm xaalis boo ñëwee ci loxo koo koy teg ci trésorier bi ñun xaalis bi ñu ko doon biile bi ñëwee ci loxo àll si lañ ko teg moo ko séddale léegi nag moom ci jëmmi boppam mu wax ne. est-ce que àndut ci ña koy jëli. waaye léegi yow bu la tànnee en tant que trésorier war ngaa mën a wóolu ñuy dem di jëli ji xaalis ñëw jox la ko parce que ñoom ñoo la tànn nga nekk trésorier waaye ñun tànn la nga nekk trésorier nga ne wóolu jiw ñu dem di ko jëli di ko indi est-ce que ñoom war na laa wóolu waat ci yoon non kon moom foofu erreur la fi def ba mu demee ba ci fin bi xam ne ne def na erreur parce que ba xaalis bi jëwee kër Cheikh doog yëpp deuxième kii bi ci loxoom lañ ko teg moo doon def décharge foofu kon ma dikk na la saa si côté bu mel noonu lañ ko jëlee woon mais jëlee ñu koon ngir na ñooy ñooy ñooy patron dëkk bi ñooy nangami dëkk bi xaalis bi bu ñu ko daan jël bu ñëwee dañ koy teg ci digg ba comité bu ne am 10 comité yi nag bu bu demee kenn ku ci ne parce que beneen comité da cee tegoon muy onzième bi muy Kër Ñang ci Kër Ñang bi defee comité yi ba pare ñoom danoo fipp génn na danoo bëgg seen comité boppam bu bu jamono yooyu tamati ñu fexe ba ñoom ñu dugal leen ci ñu bokk ci onzième comité yi. loolu bi loolu jàllee nag comité xaalis yi bu masaa ñëw dañ koy séddale par dix part onzième partie bi it ñu génneel ko wàllam. ñu fexe bañ ci biir ñun ñu ko seere parce que Latka ak maam xarit ñoo daan seere côté ba première trace ñoom ñoo seere kër ña génne ci seen xaalis ngir mooy yi yor te waa parti bi euh, euh, président jox leen ko jàppale leen ci ban am ko ñoom ñoo doon xaalis voilà sëñ Modou kon foofu ma dikk tuuti léegi nag xaalis boobu bu masaa ñëw. bu buñ ko joxee comité yooyu ku ci ne nag sa comité. Hmm. na koy séddalee wala na koy doxalee foofu la problème bi nekkoon. man nag sant naa yàlla sama comité. am na ñu toog fii ci saal bi. bu ma masaa xëy si ñëw man nee trésorier sa xaalis bi moom sama poche bi la daan fanaan bu ma masaa ñëw bala bala ñuy ba xoola ba ne salaamaaleykum génnee naa xaalis bi teg ci ko taabal ñëpp di jàkkaarloo moom ku ne yor nga carnet noonu laa ànd ak ñoom ba lépp jeex. ba mu des la mu des ci tuuti ñu jëndee man leen mi ngi nii jël leen ko dem leen tàggale ci seen i café ñibbi seen kër yéen ñi am problème nag am na ñu ko am dégg naa ko ginnaaw loolu passe présidentielle bi tourné élection locale yi bu lañ jëm lan mooy sa nekk position surtout que conseil départemental bi itteel na la wala non man tolluguma fi ci xëccoogul dara lu lépp loo gisee heure bu jotee rek da nga gis Modou Bara Dolly tàllal loxoom ci kanam waaye fii ñu toll war naa ko waaye nag comme que egguwun fi yaa di moment yoo xam ne nit dana prononcé. mais na xam ne que bokk nañ APR présentement ñu ci bari xamle nañ ne candidat. Ah, mais ñoom ñoom seen ñoom seen moo toll foofu lu ñu togg ñoragul lu ne ci kanam kay doo bàyyi da bàyyi ba mu ñor nga soog caa prononcé wu waaye doo bàyyi comme que ñi koy togg paregul bul prononcé naan ci lii bu ñoree nii la war a ñoree wala dama cee bëgg tànk bi. ginnaaw loolu itam responsable yi fi yor ay ndombo tànk nan nga gisee seen taxawaay ci gox bi même bu ñu ko waxee sax bëriwut certes que ñaari DG la département bi am présentement. Euh, nga responsable fii moom. Hmm. foofu moom président laa ci interpellé interpellé mu ci kenn. Hmm. que dëgg-dëgg département bi mérito na ñu gën koo dooleel nit ñi fi ne di ay responsable sonn nañu. mais est-ce que nit ñi non attends non xoolal gagné waaye gagné dafa am arme yoo xam ne nekkul ci suñu loxo. xam nga gagné ñi fi gagné ñëpp danoo yore arme dem nga Matam ñaataa fa nekk ci ay ministre ak i directeur nga Podor ñaataa fa nekk ci mat ay ministre dem nga Thiès nekk i directeur dem nga Fatick ñaataa nekk ci ministre gi ñaataa fa nekk ci ay ministre ak i directeur Touba loo ñu mën a waxal ci Touba bokk ci deuxième capitale de population du Sénégal. mais nag responsabilité am nañu moyen am ngeen moyen moyen mooy yan xool leen man de gisuma sama moyen man man de gisuma sama moyen ci ñu ci bari gisuñu ko non responsable APR ma ne ñu man man man sama bopp à personne xoolal sama bopp à personne gisuma moyen ñeneen ñu mel ne mel ni gisuñu ko waaye fi ma bëgg a wax amal importance fi ma bëgg a wax amal importance mooy Mor may dëkk bi daal na ko président gestu gestu les politiciens sonn nañ ci moom daw nañ ci moom tàyyi na tonn nañ ba tàyyi koo ci gis daw daw daw na xeex naa xeex ba nurutut nit cëb fii dafa bokk ci son yi gën a garaaw ci Sénégal fii politique fi président Macky Sall daanaka kirim la. Ah. ah bu wér. ndax la bu wér crime laa la wax bu mag maa ngi nii di di ñu may teg ay crime léegi ci lu koy indi Macky Sall presque ca la bokk dëkk bi koo fi gis muy dem pour mu tudd turu Macky Sall dina xeex fukki nit. fukki nit lay bëgg di xeexal ci kenn kooku bu yoroon dellu doole ju mën a convaincre yeneen juróom wala ñeent moo ëpp doole mais comme ko yorul lu mu convaincre ah, koo ci gis am naa tam lay sol comme kii maam góor daw a daw ba ba tas mais yooyu moo fi bari ci kenn ku ne dafa jaay léppam ci àddunaam ngir parti bi kon na wax ak waa parti bi dooleel leen pour mën a gagner donc nomination yi après présidentielle bi yaa ngi ci doon séentu kon doomu Touba wala doomu Mbacké bu wér pourquoi pas ci Sénégal lan bokk ci nee naa la onze département yi ëpp ay ay ay ay ci wotaan ci lan bokk 34 département yi ami ministre ami lépp ñu ñu jiitu leen fopp am nañ ay cër mhm. kon foofu li ma ci mën a jàngat. mooy que ne pour ñu gagné ko méngoo nañu jox ñu ay cër yu mën a sukkandiku ak i arme pour gën a mën a wàcc ci terrain bi gagné. est-ce seen bilan est seen bilan Touba réussir ngeen bilan bu baax fii ci diwaanu Touba ba mu askan wi mën a topp seen ginnaaw voté. mais mais mais réussir bilan mooy lan président liggéey na fi li muy liggéey mooy premier bilan def lu concret. mais mais lu gën a garaaw ci nit ñi xam lu gën a garaaw ci nit mi ngi continuer di xàll ay yoddi di continuer di yabal ay assainissement loolu rek gàcc la gàcc la mm. ci ñi fi nekkoon lu ñu ko waxuma li mu def de lii mu tàmbalee sëmb mais lan lii mu tàmbalee sëmb laa wax. li fi def mën nga cee rëbb déggu li mu la wax mais mais wax ma ne yaa ngi ne am na benn boo ci tudd léegi boobu doy na. maa ngi maa ngi nii démb. dan maa convoqué vendredi. mi ban heure laa quitté laa quitté Dakar midi. Mm. midi laa quitté Dakar 13h15 ci dëkk bi la ma dem julli ji aju dem ci convocation bi. kooku kooku acte la bu doon bu njëkk la dinaa def cinq heures de temps six heures de temps six heures de temps dinaa bi seen dëkk bi dëkk bi seen projet yu bari mel na ne pare pareegul te yàgg na lu mel ni usine cadre ballooji bi hôpital niveau 3 bi ak même 11 milliards. yi ngeen di teewul teewul mais loolu dafa amoon ay gàllankoor contrat yu ne ña ko seq ak ña koy def ñooy am seen i gàllankoor bopp waaye hôpital bu boo fa jaaree nii ma ma ma ngay liggéey baa ngay dem. wax nga ko yaakaar naa euh, euh, man li ma gën a yéem mu gën maa yéem. nga xam ne moom laay bàyyiloo xel ñun waa Touba ñun ñi fi dëkk président bi mu gagné dëkk bi mu njëkk song mooy Touba. Ah, lan la fi def après. mais gisoo mbedd 30 bi ñu ñàkk dem 26 kilomètres pourtant. ko def ma ne ma ne man man nekkuma ci contexte boobu. contexte boobu nekkuma ci man daal damaa bëgg nañuy def rek ndax bu ñuy def bu ñu paree danañ egg faneen fu ñu war a doon defee defar waaye comme que tàmbali naa def man damaa bëgg ñu rafetlu li muy def hmm. xam ne ñu bari séntuñu koon ginnaaw yooyu ñu fi def lan nga fa gis ne fi nekk mooy priorité dëkk bi biir dëkk bi Touba. non priorité bi yoon yooyu ñuy wax baax na ci assainissement bi baax na ci op wàllu santé baax na ci ndax euh, li fi ne ci ay nit mat la bu fa jeunes yi mëntu ski ñi ngi koy tabax kon nañ ñaan yàlla mu egg ci jàmm kon ba tey ñu ngi ci yoon wi. emploi des jeunes yi nag. non emploi yi mooy li ma la wax rek il dëkk bi am ay usine il faut dëkk bi ndaw ñi ñu mën leen defal ay seen i projet bopp ñu mën tënku ci liggéey ci loolu président defoon ko ci DER bi def na ko ci yeneen i projet ah euh, yaakaar naa ne avec 5 ans yi dana bari loo xam ne ni ndax président ci ay discours am lu ci bari ci ji ndaw ñi la ko concentré euh, la ko la ko def kon gëm naa ne euh, lii ñu ko élire lu ci bari ndaw ñi dañu ci gën a gis seen bopp. mais sëñ bi yow ci kilifa parti bi ngay bokkoon lan moo tax ka kay puisque ci saa si nee nañ wootewu leen réunion d'évaluation depuis seen défaite bi lan moo tax yow en tant que ki bokk ci saa si initié woo ko même bu ko sax naataango yi def di non xam nga eh, eh, mbir mu mën di doon mu ne. bu fekkee dafa jàll da ngay reculer pour mieux sauter da nga koy da nga koy def élection yi jàll na coow li bari na président ngi nommé ay post xamaguñ fu mbir mi di mujj. ñun ñëpp danoo jël recul na tekk parce que boo ne tekk rek tekk war na yoon mais faw ñun ñu defaat ñëw faw ñu toogaat ndax ñu ngi jëm ci yenn séance kon li wees woon faw ñu teg ko ci taabal ndax tey jii li wees woon bu ñëwaate woon son yi ñu ko def kenn ku nekk xam na fa biir fa fa fa fa fa fa fa mu tàngee. son yi ko defoon kenn ku ne am na rëq-rëq ñun ñi ci bokkoon ah déggoo li ma la wax ne dama ne la ñun ñi ci bokkoon ñu ñuy tuddee saas wala lu man di doon ñun ñoo gën a xam ne am na ñoo xam ni coordonné nan wala yore nan dara nan ko yoree baaxul. ca hmm. bu démb doon tey bu ñu toogaatoon dañ koy wax. kon loolu faaw toogaay jataay amat mais comme que danoo tolloon ci élection yi see soog jeex nit ñi di noppalu ji ñii di furlu ji seen i mbubu mu woowagut ah ñu ngi ci ay nomination alors que le problème mooy il faut ñun sa bopp ñu xaar. loolu jàll ñu soog a ba président du leen ci fàtte mel na ne poste yu baax yëpp yi ci ah. gën a jàll ñu maanaam tout cas jeexagut ñu ngi toog voilà jërëjëf sëñ Modou émission bi jeex na yéen kàddu ngay tàggu. ñu ngi nuyu ñëpp di ñaana yàlla it bépp jaamu yàlla bu ñu fi def ci weeru koor wi ah, suñ borom nangu ko ah, di jéggulu it ci weeru koor wi. Eh, émission bi lépp luñ ci wax loo xam ne nit gisee na ci loo xam ne nii xëy na eh, am na lu mu ci xolam lu nuñ ko gisee ñi koy jégalu ci xam ne suñ gisee si rek jubluñu ci eh, wax kenn lu ñaaw wala kenn ci ab dégg-déggam bu muy dégg moom. mu ciy déggee nenn nu ñaaw ñun jubluwuñu ci woon loolu dañ ci doon leeral rek suñu point de vue ñi ngi lu ñëpp ñu ko doon déglu wasalaamaaleykum am na ñu nekk responsable yu bari bu élection yi jàll dañuy tëdd comme say weeru koor gars yi ci bëri gisuñu leen ñu dem jox seen militant yi suukaru koor ak yooyu noonu gars yi ñu ci ba sanaat ak bëri waaw mais mais nan mais man de xaw ma bii waaye nan bàyyi xel ne daal ci ay élection lañ jël ci xam ne réew mi fan yëpp porte yi dafa tëju ah da ñu ngi changé ay xoola déedéet ñu ngi changé ay direction ñu ngi changé ay ay ministre bërki dem lan def gouvernement bi ah mën nañu wax ne foo jëm foo jëm rek dara lu dox na war a doxee gun amagut ca loolu fu réew masa toll nii rek situation sensée ñu élire beneen président kon ta beneen jéego lay doonaat beneen tàmbale lay doonaat ab tàmbale nag mën naa xaw a kii tuuti waaye ay xew li ci topp kon jàpp na ni ñun liñ yaakaar mooy lu mën a am lu mu tuuti tuuti war nañ ko mën a bokk ñoo ñu ndax même bu du loolu am na neen lu mu bokk muy Touba am na leneen lu mu bokk ngir sëñ Touba kon solidarité moom lu tuuti tuuti mënut mu nekkoon sëñ Modou Mbacké Bara Dolly responsable APR ci diwaanu Touba. Eh, nekkoon ci comité bu xayra te moo nekkoon suñ gan ci ndogu léegi Baol Média ngeen ànd ak euh, Mor bay Cissé sëñ bi dafa am kàddu ci bëgg. waaw xam nga beneen bi ci desit euh, dafa am loo xam ni dama koy fàttaliku fu mel ne Saam di dëkkub sëñ euh, Baara Xuriji fu mel ne ba ca Touba Fall jëm ci dëkk maam Cheikh Fall yooyu am na ci loo xam ne nag moom am na kilifa gu ma ci waxaloon. waxtu wu ne maa ngi ñaan yàlla it yoon yi man faa egg ba ñoom population yooyu nin xaw a teqalikoo ci dëkk bi ci bokk ci dëkk bi ñu mën a jege dëkk bi nit ñi mën a jege dëkk bi ndax man dama xalaatu ne fu mel ne saam la fa nekk ci population la fa nekk ci ay nit ci dëgg-dëgg ak yoon wi boo li mu mel par nawet ñooñu it maa ngi ñaan yàlla euh, ñu bàyyi leen xel ci man lu ma ci man dinaa ko def fu mel ne tubaab Fall ak dëkk yooyu di dëkk maam Cheikh Rafal ci fu ñu tuddee waaw ba ci doyoli yooyu yëpp ci proprocé ndax ay dëkk yi liggéeykat yi sëñ Touba ñoo fa nekkoon lu toll ni maam Cheikh Rafal yi nga xam ne foo tuddee sëñ Touba tudd maam Cheikh Rafal lu toll ni ab dëkk bi ca dëgg dëgg dëgg dëgg war naa man a am lu mel noonu euh, war naa man a am aw yoon wu fa jëm woo xam ne dana jëm ci dëkk maam Cheikh Fall yooyu waneen ba ca desit jàpp naa ni tamit yeneen dëkk yu mel ne tamit gañe nan fa yu mel ne Fala cosaanoo lu mel ne Touba Mirina ak yeneen dëkk saam yooyu ay dëkk la yoo xam ne nii laaju na ay tali gëm naa ni dana fa am insha allah rabbi ndox mi manqué ci dëkk bi nag xam naa ne forage yi leen installé ca am ay ay ay waaw quatre pompes jël na ko indi na ko yaakaar naa réparé boobu bu yàgg ci kanam tuuti ndox mi dina am ndax machine moom sagam dundu doomu aadama la yàlla kere ba yàgg mu dagg asmaak euh, wala mu feebar asmaak loo xam ne lu nit kere la kon jàpp naa ni loolu moom euh, pompe yi ñëw na léegi mbirum ndox mi kenn dutu ko waxati. jërë ngeen jëf ñu àndoon ak sëñ Modou Mbacke Bara bi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm seen émission Ndogali ak Bawol Média FM tous les jours à partir de 20h40 ki leen koy présentel di Mor Mbaye Cissé groupe Bawol Média mooy ñaanal ñëpp koor jàmm ak salaam